Euh, en fait, on va parler de l'hypoglycémie, tonton mhm. euh, l'hypoglycémie se définit comme étant euh, la diminution en fait du taux de glycémie, du taux de glucose dans, dans l'organisme. Donc, barne, na parce que l'hypoglycémie, c'est un ci organisme rek daf am solo donc euh, bu hyperglycémie ñu bonjour le diabète mais si ñu hypoglycémie aussi euh, bonjour euh, <laughs> les dégâts donc hypoglycémie en fait sucre, mooy li nga xamante ne moom mooy gasoilu mooy euh, organisme fait fait, jox énergie de énergie le cerveau en a besoin carburant plutôt carburant bi mooy gasoil bi rek <laughs> comme parce que en fait non laa ko jëlee pour ñu bari mën ko gën a comprendre quoi mm. parce que mën ta daw sans loolu bon à moins que muy dawé leneen quoi mais c'est le carburant en fait euh, de l'organisme donc euh, mom il agit directement si bépp partie muy bopp muy fépp déjà boo nekkee en hypoglycémie rek yow sa matière grise dootul demati ndax glucose daf koy dimbale. ngay réfléchir maanaam doo xel sa xel du. doo réfléchir sa réflexion du du sori du naajati voilà mm. du naajati tu n'es plus pertinent. donc euh, bu ëppee aussi baaxul parce que sucre comme on le dit bu dul diabète tamit c'est c'est très cancérigène le sucre l'excès donc euh, pour les signes en fait euh, pour nit ñi xam ne lii mooy hypoglycémie parce que lu jar a xam la ndax mu gën a gaaw a on préfère plutôt que malade bi déwé hyperglycémie que mu déwé hypoglycémie parce que en 30 secondes mën nga perdre sa malade donc jaasul kenn ki diabète sax mën na am hypo hyperglycémie hypoglycémie bu ñu hypo mhm. hypo mooy dafa wàcc mhm. hypo mooy lu wàcc hyper mooy li yéeg d'accord mhm. donc hyperglycémie mooy sucre bu yéeg mais ça ne veut pas dire que da nga amee diabète mais bu yéegee nag taxaw te laa la lay yóbbee ci diabète buñ ko sayto sa yaram xol ko ben wèr ñaari wèr tout le temps fi mu fi mu toll la toll laa ñu né la yow diabétique nga d'accord alors que hypoglycémie mom soxlawul ñukay saytu parce que temps bi ñi jël bala ko saytu ci yaram sax mën na malade bi mën na ci rëcc dé donc mom temps temps de de kii am nu muy nu agiré dafa gaaw. dafa gaaw donc moo tax symptômes yi lu jar a xam la déjà malaat bi dalay ne euh, wala du malaat sax nit ki dafay toog ne la man de damay am ay palpitations déjà xol bi dafay tëb donc euh, bu rombee loolu mu ne la damay am ay day ñaq da koy gis ne dafay ñàq même bu dee ñu ngi nekk ci sedd en plein froid dafay ñàq dafay am ay sueur froide donc bu dul sueur froide yi tamit mu ne la j'ai mal la tête sama bopp day metti parfois nag mën na boole lépp lu ñuy wax ci symptôme comme mën na ko bañ a boole mën na ci am quelques-uns rek moo lay won ni que lii loolu la am d'accord mën na am euh, aussi un malaise muy muy muy euh, déliré xam nga dafay jég saa rek am mel ni ku am ay trou de mémoire faté, mën na fàtte non du Alzheimer c'est différent Alzheimer c'est une autre maladie et c'est plus sérieux aussi encore mais euh, dafay am ay trou de mémoire mën na teg fii benn affaire léegi ngay wax ak moom moom fàtte na sax yow la nga doon wax te pourtant mu ngi ci doon wax carrément mu mu jàddee ci leneen yow da ngay gis ni kii dafay hors sujet. en fait concentré wul daal. il n'est pas concentré dafay am ay trou de mémoire il oublie day commencer benn phrase balaa ko terminer fàtte na li mu doon wax. d'accord bu loolu rombee mu am aussi des frissons dafay liw même bu dee dafa bu période de qui liw c'est tout à fait normal donc lu mata a xel parfois dina liw mu hypoglycémie alors que c'est n'est pas lié au climat. on a poser une question. oui par exemple yenn y xam nga sànq dañu doon wax à affaire mooy qui euh, pose isothermie fàtte nañu mot bi rek di ko chercher fekk daf ñu réer loolu c'est c'est c'est ça fait partie des facteurs wala non bah oui moi ah, le matin tout le matin il faut au moins nga jël même bu même moom boo café tamit euh, nga naan euh, du miel à défaut d'avoir du miel tu tu peux prendre même un carreau de sucre okay. ça aide parce que tout le matin le matin les la nit di def hypoglycémie parce que ni tamul lekk le matin dañuy jéem ma ah, bàyyi ba ah, ñu ba ba mu pour ñu lekk d'accord ou bien mais il faut prendre du sucre le matin. ok d'accord le matin. est-ce que vous kon eh, <laughs> oui avant mhm. c'est en plus voilà <laughs> non mais ça arrive hein, comme li li tu quoi c'est bien C'est vrai. et puis comme nous wax ni conseil vraiment les conseil de santé oh, le matin boo au moins tu peux le mettre à am sucre pour vraiment stimuler ce ce cerveau parce que trop de sucre baaxul xam tout lu tubaab tout excès est nuisible donc sucre bu vous nit diabète mais c'est cancérigène hein. c'est cancérigène ah parce que les cellules du cancer en fait sucre da koy dundal te suukar biñuy ñuy ni tu peux vivre sans mën nga dund giru dund ta do laal beeg sucre te du tax nga dee mhm. parce que bo lekul sucre bi ñu lay jox mën nga ko jëlé ci lem mën nga ko jëlé ci ay fruits d'accord mën nga ko jëlé ci jus naturel yu ñuy naan te moom la ñu gën a conseillé waaw moom la ñu gën donc manam sucre nga jël ko bañ ko jël boo soxlaayee glucose mën nga ko amé feneen fudul ci beegu sucre yi d'accord mën nga ko jëlé feneen fudul li ya les sucres naturels déjà mango rek mom c'est un sucre bi nga xamante déjà c'est un sucre lent donc euh, sucre là c'est des fruits yo ils ont du sucre tu peux le prendre autant de fois même bu khal ça il y a des fruits yo xamantene ne ñoo mel lem que que que déjà c'est très très très sucré raisin raisin bu c'est trop sucré bu ñoré xom c'est trop sucré. est-ce que c'est bon pour les diabétiques? raisin mais tout excès est nuisible aussi. Ah, c'est un fruit mais il ne faut pas en abuser. Euh, pardon. oui raisin faut pas en abuser C'est sans grain sans pépin. sans pépin sans sucre, ça ah ça y est man shit non attends bon, baaxul mais yo, mais j'ai un faible pour ça moi. mais autant prendre le, raisin vert que le rouge. chaque ah semaine ouais. j'ai mon truc. Hein. Oui, mais euh, euh, il faut il faut limiter. Il faut limiter. Non non tant que il faut limiter parce que moi j'ai un ami il est nutritionnel <laughs> il est nutritionniste de moi. Oh donc à chaque fois si euh, diabétique non moi je conseille aux diabétiques de tout manger parce qu'on te dit bu lekk lii alors que yow aussi organisme soxla na lii dañ dañ lay rey donc moom dafay faj diabète moom dafay dafay traité ñu am diabète ba diabète réer seen yaram te dañuy normal seulement par portion la leen koy defal mhm. ak wax leen lañ ko comment faire pour brûler ce sucre là et c'est ce qui est très important D'accord on va pas parler de comment brûler le, le, sucre, mais au moins on va parler aussi, euh, on va parler de comment éviter d'avoir l'hypoglycémie. Donc il faut toujours avoir un bonbon ou un biscuit dans le sac boo ndékkiwul le matin parce que amna ñoo xamantene ne tàmmuñu ndékki ñii di régime aussi éviter leen di tëb ay repas parce que repas bo tëb sa organisme mu ngi ut lu ko compenser donc mu ngi dem tout le temps réserve mhm. d'accord bu fekkee le matin da nga wara jël sa ndékki normal ndékki wo outal au moins un bonbon wala un biscuit nga lek pour remplacer en fait glu glucose bi nga waroon am sa yaram apport pour éviter ce ce ce sa organisme di di di di di nekk en alerte d'accord

mais c'est juste bonne année ben qui wala nga match ben tangal da ngay ni xif xiif da fay taxaw donc c'est une fausse faim en fait mais fay alerter pour won la ni que ah sa yaram mu ngi commencé laaj suukar da ngay commencer di lox même pour tee big pour bind sa man da fay da fay compliqué voilà nga commencer am euh, metti bopp sa bopp di metti xam nga do do meuna taxaw ngay melni kuy miir donc du donne mire avéré mais tu sens que c'est un malaise en fait tu te sens pas bien voilà il y a quelque chose qui te manque donc nous c'est des signes alarmants c'est des signes alarmants yooyu bu amé rek dawal euh, lek sucre wala nga ibi ben canette boisson nga xamné c'est très sucré nga Nan parce que bo dano mën nañu bala ñu lay yëkëti di dem hôpital wala bala ñuy woté sami muy ñëw di la jël ci fekk yow wacc nga voilà oh c'est quelque chose bo xamné tu peux perdre le malade en 30 secondes nous à l'hôpital en fait à l'hôpital c'est ce qu'on redoute plus moi parfois nga dégg ñu né la euh, nga euh, bon à la maison ñu né la man de sama malade dafa dem hôpital dafa diabétique ñu may ko sucre mm-hmm. c'est normal on meurt plus vite d'une hypoglycémie que d'une hyperglycémie donc malade bu tous dans tout cas on te remplit bu sa diabète yégué ñu as mm-hmm. un coma diabétique day avec l'insulinothérapie et un contrôle la faillite 4 loolu c'est pas un problème en fait c'est pas une urgence euh, euh, comme mais manque bi mooy doy manque bi moo gën grave manque bi grave mais li ci gën a déjà bu malade bi avant de faire quoi que ce soit dañ lay jëlal sa suuf mais seulement du tout hôpital ñoom ñoo euh, l'appareil les urgences du urgencier ba non l'appareil bi le glucomètre c'est pas tous les services c'est pas tous les services d'urgence mais Fatou je pense que nous loolu kon wax parce que ak fi réew mi toll nii appareil yi nga coûte absolument absolument même ni nga xamante ne amuñu jabet seen kër dañ ko war am pour de temps en temps ñuy xool am ay hôpitaux yo xamante ne amuñu ko loolu c'est mm. anormal parce que même si biiru boo ko defee dem hôpital waruñ la defal ben perfusion te defaluñ la lii parce que mën nañ la defal lii fekk yow da nga am jébet ñu defal la perfusion bu am glucose ci sama xalaat bu gàtt. non non mais c'est un appel aussi. il faut que comme li nga wax léegi am na <laughs> ay taux de sucre yoo xamante ne je pense que ni bu demee ba élevé élevé wu aussi mm-hmm. euh, moog ñiy wàccale bu baax ñoo parce que man am na benn boutique yee ndeysaan bu nekkoon sama koñ dafa jékki woon jékki di maigrir mais jour bi ñu ko yóbbu hôpital yaakaar naa 5 grammes la amoon. xaw ma 6 maa regee dafa dem daal di fa la yam. Mm. am na fa ay 6 jours jéem nañ koo faj ba sonn mais moi ça waaw mais mais comme limay wax rek euh, bu à défaut xam nga limay wax moy euh, déjà buñ la défalé sucre, bi duñ ko def à flot mu daw di nga ñëw en attendant sax même bu des services bi amul ci service yu bari yu ma gis hein, mhm. de mon expérience personnelle bu fekkee ni que service bi amul glucomètre dañ koy defal placer le convoi défaut le glucose bi et puis à faible dose à 5 mhm. en attendant d'aller chercher un glucomètre pour venir le mettre déjà on écarte l'hypoglycémie parce que je te dis amna ben cas bo marqué c'était durant ma formation on était en stage aux urgences à l'hôpital régional de Ziguinchor benn mère elle était venue euh, ko opérer diabétique elle est déjà diabétique connue donc mu euh, le matin ñu allons ko opérer à 7 h du matin donc xam nga la veille la depuis 19 euh, h day arrêté parce que le lendemain à 7 h elle doit se faire opérer mhm. donc mère bi le lendemain à 7 heures ñuy xaar chirurgien par la suite ñu formons ñu ne non na xaar xam nga attente boobu donc wóoru leen ndax dinañ ko opérer wóoru leen ni duñ ko opéré ñu ngi doon xaar bloc bi disponible pour ñu jël ko ñu doon jël par urgence xam nga déjà même bu dee moom elle est sur la liste de la de, de la programmation bu amee urgence bi gën a kii kooku la ñuy jël mhm. moom bosoom mën na xaar gangrène bi mën na xaar alors que ki nga xamante ne urgence la c'est un accident wala daa ñu indi leen donc ñooñu la ñuy njëkk jël en charge gis nga ci mhm. attente attente boobu ma romb mu ne ma sama doom ma ne ko waaw mu ne ma dama liw ma xool clim bi tàkkul ventilo bi tàkkul ma delloo bunt bi ma delloo bunt bi ñoom mu ne ma dama liw tu comprends mais boobu j'étais encore étudiant j'étais en première année euh, xamaguma woon signe yooyu mais sama sama sama fofu au niveau de l'hôpital euh, maa ngi doon gis yenn kaay et tout sama xel dem na ci na man kii est-ce que nekkul def hypoglycémie après ma ñëw ma ne ko yaay yaa ngi wax ni dëngal yow man dama am habitude di woowee ñëpp yaay ak papa même à l'hôpital c'est une habitude que je euh, bi ma am donc ma ne ko yaay yow yaa ngi yaa ngi ne dëngal liw mais mais mais kii lekk nga mu ne ma déedéet ñu ne bu ma lekk si laa xam sax ni que moom malade bi moom loolu la doon xaar opération bi et tout donc ma kon te ngaa parce que il est déjà 14 heures après ma daal wo euh, l'infirmier de service ma daal di koy woo mu ñew mané ko mère bi de néna dafa liw té dafa ki mu ne ma ah xaaral ñu ñu ñoo xol suukaram des fois mané ko nono le temps moom muy dem indi propre appareil parce que urgence boobu temps appareil yi fa nekkoon pile da dan tak di fay et tout donc duñ don am résultat juste le temps mu dem ci casier dem li ma daal di ne doom du est ce que doko dem outeul coca ci boutique bi. parce que man dalul sama xel man n'a di responsabilité man en tant que stagiaire xamna ni tay la ñuy may wax arrêter sa stage mais au moins mu mu naan coca bi parce que xawma mais l'eau la ndort dawal nga dem outeul ko mais gis nga dom ji dafa wone gannaaw di dem rek mère bi ni la sandé ko comme ça donc man depuis lors c'est la ragal hypoglycémie c'est la ragal hypoglycémie et puis d'ailleurs, sans pas bouder mon dee il a fait une hypoglycémie qui est au corps, forcé il est diabétique buntu Auchan la dame bimay bimay bi ex dama daw si je n'ai même pas ma fekk ñu may ko banane mu lek mais dama daw jëndi coca ben grand mom da don romb rek moom moo daw sa bi ma ku yor wécc ku yor moom moo daw dugu agent indi ben coca dajji ñu jox ko mu nan mhm. après vigile bi di ma expliqué ni euh, dafa dafa daanu ma ne ko hypoglycémie la def il est diabétique il s'efforce mënatul mais euh, ki am euh, li am num tuddu ci yantam conscience am mayu ko mu baña wor mhm. muy forcé wor

xamante moom chaque jour waa këram dañ koy tere ne ko bàyyil woor bi mais day woor mais chaque instant yaa ngi ko fekk bu toogee mi ngi jam affaire bi di xool ndax li di contrôler te loolu baaxul bu ko si dara dalee tey ji ay waa këram ñoom ñooy sonn mhm. bu weesoo loolu comme li ñu doon wax léegi ci affaire appareil ñëpp aal dañ ko waram loolu jar na ñuy def ay campagne de sensibilisation man sama rakku papa bu topp sama papa sama bàjjen ndeysaan dafa mës a feebar am tàpp bu métti ba nekk suñu kër sama yaay yor ko bi ñu demee ba xam ne lii ça devient sérieux ñu jël ko yóbbu ko hôpital déjà pour ñu yóbbu ko hôpital bu nekk yóbbu nañ ko fa Dominique la ñu njëkkee parce que temps yooyu logement bi ñu fi ñu dëkkoon mhm. côté boobu la jëluñu ko ñu yóbbu ko fii ci benn hôpital bu mag ci ñaari hôpital yi gën a mag ci Dakaaru Njaay gi si la mhm. bokk dañoo dem sur le champ ñu xool ko directement urgence yóbbu ko mhm. opéré ko nekk dafa am jabet si la gaañoo xam nga loolu day doon ay cas yoo xamante ne il faut avoir les bons réflexes alors si peut-être loolu yàgg na am na mm-hmm. peut-être ay 20 ans wala 19 mm-hmm. ans yooyu mais léegi nii dañoo wa lii moom ñëpp ñoo ko war a am man mii feebar naa fi dem hôpital ñu ne ma demal nga wuti suukar lekk ko wala sucette tàngal mm-hmm. mi ngi noonu te jebetuma dara daluma. peut-être loolu moo ma daloon man li ma bëgg a laaj rek Fatou te par yaa ngi wax euh, hypoglycémie bi ak euh, ak kii bi ak hypoglycémie bi ak euh, nu mu tudd sax ak weeru koor bi donc lan ngay conseiller nit ñi parce que xam nga weeru koor bi comme li nga wax duñu lekk donc da ngay xiif ci journée bi euh, sa suukar mën na manqué et tout donc ban conseil lañ leen ni lañ leen ni jox suba si wala nan lañ war a mën a organiser en tout cas ba hypoglycémie boobu duñ ko am. xam nga déjà ñi jëmee njëkk jublu ñi nga xamante ne ñoo am diabète hein, parce que diabète léegi dootul pas yi kese toute la jeunesse est diabétique presque donc euh, képp ku am diabète à défaut de ne pas jeûner jëlal say garab le matin booy xëdd. jëlal sa garab yi nga naan te nga lekk ba suur jabet sax dafa àndul ak koor ah, ah, àndul ak koor mais ñenn ñi seen seen conscience moo leen mayul ñu bañ a woor feebar àndul ak koor ba risque seen àdduna euh, risque seen vie waaw ñu bëri dañuy risque nag ñu bëri dañuy daanu ci mbedd yi gis nga ñu bëri dañuy malaise yàlla tegu leen loolu de yàlla tegu di nga gis parfois du sax woor wooruñu parfois nga dégg euh, am na ku jóge woon hôpital dee ci dee ci ci bus bi ñaata moor ngeen di dégg ci bus yi mm-hmm. Ça fait maintenant 3 ans, 2 ans que nous avons vie. Mais nous, nous, c'est des gens qui ont hypoglycémie. Des fois, nous avons une autopsie, mais nous avons une hypoglycémie. Parce que malade, par exemple, cœur a un rendez-vous dans la tech parce que xamul bu démé hôpital déjà ñun fi boy dem hôpital do lekk parce que tu te dis que à tout instant mën nañ la bindal bilan nga def analyse mm. donc buñ la né lekk nga yow da ngay bëgg tout le temps buñ la né lekk nga nga ne non non lekk ko ba ñu né la kon dugal labo ba nga dem défi analyse bob donc dañuy ñëw à jeun à l'hôpital nga yëndu hôpital do lekk parce que do gaaw gis médecin bi tu passes toute la journée mën nga gis médecin bi 14 h 15 h donc yow déjà yow gëj nga lekk depuis démb ba 14 h 15 h kokku loy fooy jaar ba do hypoglycémie fay jaar bu doo hypoglycémie te bokk na ci loo xamante ne mën ngay di toog di waxtaan ak nit ki léegi ngeen di ree léegi mu dee léegi fi mu toog nga naa mënte kii léegi la doon waxtaan fii de mais Fatou ma la ñu toog lay sama buntu boutique sama voisin sama voisin romb ñu heure julli juma yor cartable le temps que paa yi di julli juma ak ñëw jarbaatam bi toogoon suñu ko ñëw fëgg sama yaay ne ko tonton diw dafa daanu ci bus gaañu na hmm. Hmm. heureusement ci benn buntu hôpital la daanu jabar ji mi ngi woon marché bu nekk loolu dafay bëri chaque jour da ngay dégg cas yoo xamante ne te doo xam lan moo leen di rey soit da ngay fa ku ko wax nag ku mu dal nga ne arrêt cardiaque moo ko dal. Mm-hmm. pourtant mën na bañ a nekk arrêt cardiaque mën na nekk comme li kii di wax. man nag vraiment damay damay damay am une pensée euh, al avant ñuy jeexal rek mm-hmm. damay am parce que souvent damay gis su ma demee comme par exemple terminal on vient le matin de très bonne heure ñu nekk fa presque ba 23 heures da ngay gis prisonniers wala détenu yi du ñu lekk mm-hmm. donc loolu aussi dafa nekk loo xam ne hypoglycémie mun na si am donc ñu ciy attirer attention euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ŋànk loolu vraiment ñu siy bàyyi xel parce que man du benn yoon du ñaar yoon tey jii lii moo tax ma ma wax ko mais yàgg na nga gis boo demee tribunal par exemple le matin ñu convoqué la par exemple ay 8 heures tu viens nga gis détenu yi gars yi dugal leen ci kii bi parce que xam naa ne heure bi ñuy jóge foofu peut-être du ñu lekk donc mais dañuy passé toute la journée presque ba ay 23 trois heures du ñu lekk parce que tant que pare wuñu jugement bi du ñu génne donc ñooñu aussi vraiment hypoglycémie mun na leen mun na leen parce que souvent cas de mort yi am ci euh, prison yi ak yooyu donc maay ñi leen di hmm. déjà dañuy lekk ba suur naan ba màndi naan seen jus jël ay doomu jàmm waaw waaw mais bon mu mekk ay détails moo leen fa dugal nga leen di xiif nga leen di xiif comme li ñu wax rek donc ay xar sax soo leen yoree soo yeewoo di leen defal ripaas ak jox leen pour ñu ñu lekk donc di profiter rek vraiment comme li li kii wax lancer un appel vraiment autorité yi ñu bàyyi xel ci loolu aussi les prisonniers yi nga xam ne dañ leen war a juger xam nga dañuy yeewu le matin ay 5 heures du matin lañ leen di yee bu ñu lay yeewee rek automatiquement nga profité parce que da ngay dem jugement doo sala lekk donc tu passes toute la journée. xam nga kooku hypoglycémie la bo xamantene ñom ñoko ko tek motax mhm. mo mu don lu délicat. Mhm. donc mais amna hypoglycémie comme déjà agent de santé seen bop dañuy daanu ci kaw maladie. da ngay gis infirmier wala médecin taxaw di consulter mom ci bopam daanu parce que bi mu xëyee il n'a pas eu le temps de prendre son café depuis bi mu xëyee ba tey mu ngi gis ay malades. kon yoroon naa chirurgien yi def ay 10 heures 10 heures d'opération. moi j'ai connu un que je salue déjà quelle contradiction ceux qui sont supposés nous demander de prendre d'avoir les bons réflexes ñoo def yooyu c'est pas possible. non dañuy am parce que. Bah ah, ah, non al taxawal gis nga hôpital. c'est impardonnable ça fa nekkul sa un million bi nga xamante ne si tu le côtoies pas même bu dee amoo mbokk bu fa nekk de temps en temps di fa wàcc di xool les conditions de travail. Mhm. xam nga ñi ñaa ngi ŋàññi ñi ñaa ngi wax ñi ñaa ngi wax mais aussi les réalités de l'hôpital ñoom ñu ngi koy subir. ñoom ñu ni ko malade bi di subir. comme les gardes pénitentiaires bi nga xam ni tamit ils font un travail remarquable. mais malheureusement ils ont un budget bi nga xam dañ ko war a gérer exécuter ko. c'est tout voilà c'est juste ça. voilà tu vois. Mais non vas-y tu peux le dire hein, voilà, Larry je suis resté euh, neuf jours au lit. absolument voilà comme chanteur. voilà léegi micro bi voilà micro avec voilà légui jox ko micro comme ça mouki voilà moo les nak ce qu'on va faire moy euh, Fatou bon euh, voilà vous allez nous permettre hein, d'avoir ben flottement Bon, ndaw ndaw ndaw rek le temps que Kader euh, puisse réinstaller le micro et hein. ngi ngi mo Morning King ñuy wax glycémie. Euh, hypoglycémie du moins euh, avec Fatou Kamara spécialiste sur les questions de santé Je vraiment euh, doy vraiment ñëpp parce que am solo. vraiment man Seydina wala Fatou bi nga vraiment scrupuleusement parce que votre vie en dépend voilà Fatou bu ko laal micro. voilà on peut on peut continuer maintenant. Bismillah. Non, touche pas, touche pas, touche pas. Ah là, vas-y, tu peux te rapprocher. Hein. Ah, ça va, ça va être compliqué. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon. Euh, donc, euh, par loolu lañ euh, doon parce que doon lo loo xamante ne ñu ngi wax manela c'est quelque chose bi nga xamante ça touche tout le monde même qui nek ci këram sax di xew la mère de famille qui est à la maison bu xëyee le matin tout xalé yi jàngi nañu moom mu ngi daw na muy défaré këram mu ngi daw na muy démé marché elle n'a même pas le temps de manger. Mhm. donc bu dee ku ni que déjà système immunitaire am dafa xaw a faible rek kooku du muccu ci hypoglycémie les femmes enceintes aussi pareil surtout ñom ñoo xel parce que dañoo wan euh, en état de grossesse début de grossesse donc par envie la ñuy bëgg donc caprice yooyu nous tamit am borom kër il ne le comprend pas du leen ci donc facilement une journée tout entière du parce que bu dal carrément sama day day donc lan au moins même mu match voilà pour parce que ci ñom la gëna a tu ci ñom la gëna a parce que déjà ñom as suukar bi dess bala ko cerveau di jël sax lire be koy ñëk a jël yépp mom elle se vide rapidement en fait parce que m'om elle vit pour deux donc euh, hypoglycémie dal mu ngi nonu mom lañ doon waxtaanee tay té doon na à maintenir mu ngi lor mu ngi lor ñu bari xamuñu ko ñu ngi naan arrêt cardiaque la def ñi naan dañ ko corte ñi naan dañ ko liggéey voilà alors que hypoglycémie donc la donc doon loo xam ne am na traitement nag am na ñoo xamante ni ils sont hyp ñoom dañu am hypoglycémie normal ñoom naturellement ils sont comme ça seen suukar dafay far di wàcc donc ñooñu tout le temps ils ont des des des des des médicaments yu leen di jox traitement la ñu leen di suivre à l'hôpital à défaut de te donner le traitement même dañ lay changer ce régime alimentaire pour ngay di yok sa suukar naturellement sans pour autant nga nga nga yokkal sa bopp euh, sucre donc euh, ñuy wax rek di len manger cinq fruits et légumes foog naa ne même boo ndékkiwul sax le matin bo yokul suukar boy far di def cinq fruits le matin à longueur de journée même bu fruit sax le matin nga ben banane, wala nga pomme ça aide voilà voilà un biscuit même les euh, femmes si euh, carnet dañ leen defal mais vous le respectez jamais mais aussi il faut comprendre lire uh-huh. du ko def ki nga elle se dit que man yor par exemple Vous 2000 francs à gérer pour toute une semaine du jël 2000 am da koy 2000 boobu mu ngi xool nam ko ñenn ñi nag xew a leen sonal. 1000 francs bu ñu am du ñu lekk dañ koy jël dajale. pour ndawtal ak xew ma non bëri na fii si si si si mm-hmm. si. du ñu lekk surtout bu ñu demee ba toll ci yenn instant yi bu yenn yenn mois yi. lekkatuñu naanatuñu solatuñu lu baax. lu ñu am ñu ngi koy dajale mm-hmm. stressé. lu ñu am ñu ngi koy dajale pour xew ma. pour lu ñu jëndee yére ak pour ah, ngente. parfois ngottu gogou di téré sen qui xañ dañuy tak sen bir ndax bien donc ce c'est pas bien C'est à souligner aussi. arrêtez de vous priver. voilà arrêtez de vous priver quand vous êtes enceinte vous mangez bien parce que vous mangez pour deux personnes pour yow la ak sa dom di len lek lu sept sel mhm. fruits période les fruits bari même bo yoru lon cent franc boko yoré sa taxaw jënd nga tranche xal wala jënd nga paquet biscuit loolu lekk dina la mëna té nga nan sa ndox dina la mëna té mhm. donc loolu lañ indi lon tay tonton Al euh, ci euh, rubrique conseil santé mhm. l'hypoglycémie je pense que l'air na ci nopp ñu bari ñu am ay questions yu mëna poser jëlee nañ si xam-xam bu bëri moom macha Voilà, merci beaucoup euh, Fatou Camara. Euh, nous parlions de l'hypoglycémie, hein, mais, en fait, Boudoyouar. Euh, suivez les conseils scrupuleusement parce que question de santé, là, voilà, je suis bakan. amul dara loo ko gën a fort n'est-ce pas